mushahidina al awfiya min talfasatikum al mufaddala télévision Futurs Médias nuhayyikum bi tahiyati al islamiyya wa naqulu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloog seen télévision Futurs Médias di leen nuyu waaye itam di leen ziar di leen ndokkeel ci weeru tedd wu barkeel wi de ñaan yal na yàlla nangul nu sunu koor ci darajay Seydina Muhammad nuyu kilifa diini yi waaye itam nuyu kilifa aada yi ñaan réew mi yàlla ci yàlla doole jàmm doole ci barke ci darajay Seydina Muhammad ñaanal ñu nekk bitim réew ñoom itam yàlla gën leen a barkeel barkeel seen njaboot gafa nekk nuyu ñëpp ziyaara ñëpp euh, ñaan suñu cofet ci Seydina Muhammad yàlla na ko yàlla gën a dolli ci darajay rasulullahi mbokk yi ñu ngi am mbégte bu baax a baax dellu siwaat seen émission bi di siira war a waxtaane yàlla waxtaane waxtaani alquran waaye itam waxtaani asiratu nabawiya mooy ay doxiinu rasulullahi wax naa la siira am na ñuy wax ni ay mooy li muy firi mooy jikko waaye siira mi ñu ngi ko ci baat bi firi asayru mooy dox euh, ñu ni siira ñu ni siira mooy doxin mooy doxinu rasulullahi doxin nag mën nga jël mën nga ko firee sax baax na ay jikko jikkoy Sayyidina Muhammad ndax doxinu rasulullahi ci mbaaxam nga mën nga ko firee euh, siira nga mën nga ko firee euh, Euh, mbaaxu Seydina Mohamed wax naa la ni la relation bi ngay am ak borom bi subhanahu wa taala il pour mu normal il nga jël ay jukkoy Seydina Mohamed waaye itam am na leneen lu war a normal itam mooy sa digganteeg peuple bi wax naa la pour mu mën a jag il faut nga dox doxinu rasulullah yi ca comprendre nga àdduna ca mbaaxam nga ca jéggaleem ak jëllalim nga moom Seydina Mohamed nga xam ni waxoon naa la démb ni la koo yebal da nga ko dara jàll yàlla dara jàll na Seydina Mohamed ndax lu yàlla bind mooma Haj maa ngi lay nuyu jàng Oustaz Pape ñu lay fay nuyoo bu baax di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Mhm. di nuyu mboolem téléspectateur yu TFM yëpp yi nga xamante ne bi ne ñoo bay seen yitte yëpp yeewu toog ci télé bi fii ci bitim réew ak ci biir réew mi yëpp ñu ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam. jërëjëf Hadj Malick Dieng ñu ngi nuyu mépp kenn ku ci nekk turam ak santam mhm. euh, incha allahu taala xam naa. aljuma suba ji maa ngi daal alxaaji Malick Diop bu Thiès bu sunu baay alxaaji Omar Diop di rek alxaaji Dirisa Diop aljuma ja ca topp maa ngi dalal oustaz Alioune si yor daara ju mag ca Kër Massar di sëtu Cheikh Seydi alxaaji Malick bari xam-xam lool moom itam mhm. euh, incha allahu taala xam naa talaata jii di ñëw maa ngi ah. war a dalal Serigne Mara Fall moom itam dina ñëw euh, waxoon naa la ni la mboolem borom xam-xam bu ne ci réew mi dina euh, dina am lenn ci borom yi xam daañu ñëw ànd ak ñun ci euh, émission bi di siira incha allahu taala allahu taala tey oustaz Karim Ba mhm. mooy ñëw léegi ci kanam waaye tey dañuy defe naa mën na jël ñaari aaya ba ñetti aaya avant oustaz Abdou Karim di ñëw waaye dafa mën lu mu digoon téléspectateurs yi waxoon leen ren dañuy waxtaan mu'jizatu rasul mhm. ay kiimaanu Sayyidina Muhammad ay kiimaanu rasulullah mhm. waaye man na mu ci rek li tax ma jiital lii mooy delloo si xel yeeg xol yëpp ba ñu doon lay xam yàlla doon lee xam alquran mhm. waaye itam doon lee xam sunu waaj itam mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xam nga tey ban saar lay firi mhm. ban saar xaaj Malick tey maa ngi war a firi xolu alquran est-ce que tey jii mhm. xolu alquran laa war a firi tey tonton mag mën nga afficher numéro yi bu ñu demee tuuti nga ubbi ñëpp dugg waaw suukaru koor yi dañ koy joxe télévision Futurs Médias wax nañu ni kër gu ne war nañ faa dugg jox la suukaru koor dëgg la waaye ñi ñuy jàppandi ñooñu bu ñu ñëwee mhm. ñu yónnee ñu jox leen seen suukaru koor saako ceeb a ngi fi insha allah tamaatee ngi fi parce que euh, tàndarmaa ngi fi mhm. café ngi fi ak yeneen ak yeneen yëpp dañu koy joxe rek waaw yooyu baax na te ñoom nee nañu seeni i téléspectateur lañ koy jox mhm. waaw Serif Dia nag journaliste bi la ci kër gi moom du woor. aha du woor démb laa ko bett muy naan Serif Dia di lekk. ah def loolu. ndax xam nga jayeen yi moom loolu la jikkoo ak ñi sant saw. est-ce que. xaj maa ngi war a firi. Mhm. maa ngi war a firi tey xolu karim. allahu akbar. ngi war a firi saar bi nga xam ni saar bu Seydina Muhammad alayhi salaam bëggoon la. Mhm. maa ngi war a firi saar bi nga xam ni yonent bi bëggoon na ko. saxaaba yi bëgg nanu ko mag ñu baax ñi bëgg nanu ko mboolem kuy jullit bëgg na saar boobu xaj Malick saar bii nag la ca nekk ci ay jagle la ca nekk ci ay yiw la ca nekk ci bàyyi nit wara a bàyyi xel yàlla kenn xamul nu mu toll ci biir saar bi xaj Malick ca ku ñuy wax Habib Habibu Najaar demoon ci benn dëkk ba nga xam ne yàlla yónni woon dafa ñetti prophète muy Saadix ak Mas Masduux ak Chamaun waa dëkk ba weddi leen ci biir saar bii la ne bi leen waa dëkk ba weddee fekk Habib Habib na jaar mi jaamu na yàlla euh, jaamu na ay xërëm soixante-dix ans Habib na jaar yàlla ko nattoo woon mu silmaxa mhm. wax naa naan silmaxa ñaar la nit ma mën naa gëmm du gis waaye xol ba di gis waaye moom ay bëtam gëmm ba noppi xolam gëmm muy jaamu xërëm mu Habib na jaar mhm. naan sama xërëm yi may jaamu sunu yàlla jii kat comme la aboo jëhalin saay-saay ba daan di wax naan maa ngi yaakaar ëllëg yàlla may ma ndam ci yàlla ji ñu tuddee laata ak yàlla ji ñu tuddee manaata ak yàlla ji ñu tuddee xuzza ak yàlla ji ñu tuddee hubal hubal nag moo nekkoon yàlla ju mag ja seen yàlla ju mag a mag ja ma nga tuddoon hubal amoon nañu yàlla ju tudd laata amoon nañu ñoom yéefari yàlla ju tudd manaata euh, amoon nañu yàlla ju tudd xuzza waaye amoon nañu yàlla ju mag ji nag yàlla bi nga xam ne moo gën a mag ci ñoom mm-hmm. mi ngi tuddoon hubal ñoom la ñu yaakaaroon mhm. waaye Habib Najjar moom mi ngi dëkkoon dëkk bu ñuy wax euh, dëkk bu ñuy wax Antatiya mhm. Antatiya moom ma nga dëkkoon ca gën jaar sori yi ca dëkk ba moom moom moom Habib Najjar mhm. waaye bi ñu waa Antatiya bi ñu weddee Saadix weddi Mas'ud weddi euh, Masduux weddi Samuun di ay ñetti prophètes yoo xam ni ñetti yërëntu yàlla yónni leen ci dëkk ba ñu weddi leen waaye moom muy ku yàlla baaxal bi mu dajeeg yonent yi yonent yi ni ko waaw yow Habib la jaar sa feebar bi ngay tawat pour mu deñ mhm. juróom-ñaar fukki at yaa ngi koy jaamu ay xërëm mënul deñ ñëwal ñu boole laak sunu yàlla ji ñaanal la sunu yàlla ji ci sa feebar bii deñ mu ni man sama yàlla yi maa ngi leen topp soixante-dix ans pour man silmaxa naa silmaxa gis ñu ni ko da nga cee boole silmaxa xol ba pare Habib la jaar yaram ba dafa déformé wu woon mu ñaan yàlla ni xëy na yàlla mën na maa dimbali ba sama ba sama feebar mooy sama yàlla yi ba sama feebar ba deñ mu ni waaw yéen seen yàlla jooju ngeen mën na loolu mën ngeen naa ñaanal ba sama feebar bi wér ñu ni ko mën nañ ko bi mu ñëwee dal di tuub nekk wayu gëm yërëntu yooyu nga xam ne lu ñu wax yàlla def muy saadix ak masu ak ak masduux mm-hmm. ak chamoun mm-hmm. ñaanal ko yàlla ñaanal ko yàlla ba feebar ba deñ ñoom ñetti profet yooyu la ñu wax ak waa dëkk ba di am taali am taatiya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 ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل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 sadaqallaahul aziim sadaqallaahul aziim jërëjëf Haj Malik yàlla ngay waxtaan ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaasiin ñu ni yaasiin yaasiinu li maa xuri a waaw waaw Haj Malik ñu ni yaasiin mooy ijaazul Qur'aan moo lottuloo gaaya ndax gaa yi wax ni mën nañoo jàng bari nañu xam-xam mhm. yàlla jékki-jékki mi xaaf mhm. waaw moom yàlla lu mu ca namm mhm. jékki-jékki indi ay xaraf alif lam mim waaw ndax gaa yi xam nañu luy loola ñoo waxoon ne ay boromi xam-xam lañu mën nañoo indi lu mel ni alquran yàlla ni xaaf dem ba mu yàgg yàlla ni alif lam yàlla ni soat dem ba mu yàgg yàlla ni taaha dem ba mu yàgg nag yàlla ni yaasin waaw ndax jël ay xaraf benn ñaar ñett rek wax ndax amoon na ci arab wala benn ña wala benn baat ne xaaf ndax amoon na ci arab seen i waaw loola moom lu ci yàlla namm saay-saay màkk xamunu yàlla ngi leen di réeral waaw ci biir kon yaasin kon ijaazul quran ñu ni yaasin ndax fa ah, fasaxa ga ne ak balaaxa ba ca mhm. moom yaasin moom euh, inna li kulli shay'in xalban mhm. wa xalbul qur'ani yaasiinu mhm. wa dittu annaa fi xalbi kulli insaanin mhm. min ummati Moussa Baye wax nee na lépp am na xol bépp mbir rek am na xol waaye xolu alqur'an day xolu alqur'an sayyidina Muhammad nee na mooy yaasiin sallallahu alayhi wa sallam bari di ko jàng sa affaire dana baax jàngal ko ku tawat yàlla mën na koo dimbali jàngal ko ku nekk ci sukuraat yàlla woyofal mbugal sukuraat ma aha Mustafa neen sopp naa day ci xolu ci mbindeef yëpp euh, ñuy jàng xolu alquran te mooy yaasin wal quran al hakimi mm-hmm. ñu ni yaasin maanaa yaasin euh, ya insaanu fi lugati tayihi waaw waaw ñu ni euh, ci langu giir gu wax tayihi ñoom dañu wax ni yaasin mooy yaa insaani mooy yow yow nit ki mm-hmm. dégg nga de yaa insaanu mm-hmm. mooy yow nit ki ñu ni ñu ni yaasin day lottuloo na lottuloo mooy al moo moo lottuloo mindeef yëpp moom yaasin ndax kenn xamul yaasin lu ca borom bi subhanahu wa taala namm ñële seen langue ñoom dañuy wax ne yaasin mooy yaa insaanu yow nit ki waaw waaw dégg nga de yàllaa gi waxtaan ak Seydina Muhammad wax nañu nag ni yaasin bu ko yàlla waxee rasul da koy neexal daf naan ko le li beau des beaux mooy kuy taaru rek yaa ko gën a taaru boo amee chance ba mu ne la jàpp loxo doo bëgg mu bàyyi moom yonent loxo yaa gën a nooy coton sallallahu alayhi wa sallam ñeent fukki fan parfum lay xeeñ boo amee sens ba mu xool la doo bëgg mu xef est-ce que bët yaa rëy moom rasulullah yi la ci weex ne tal la ci ñuul ni kukk boo amee sens ba muy wax ak yow doo bëgg mu xef boo bëgg mu bàyyi ndax buy wax day am leer buy génn mhm. diggante sakkar yàlla ba leer a ciy génn bu ñu yaa gën a weex perkaal ña bëñ na mu rankaloo mhm. bëñ ak bëñ ak bu ci ne am na sàkkar yàlla waaye waaye bi ci bi ci digg bi nag bi ci suuf moo gën a yaatu tuuti buy wax sàkkar leer ay génn isa takallama xaraja nuurun min bayri sanaya sayyidina Muhammad boo amee sens ba mu wan la ginnaaw dootoo bëgg xool kenn ndax dafa amoon taxawaay nom bay bàdde tasaaroo moom sayyidina Muhammad bu dee sit tax ca kaw rasul sut la daga may laaj lu tax lu tax mbagg mu amul droit sut mbagg yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lu yàlla bind moo ci dàq kon bu ko yàlla yi wax yaasin wax nañu ni nag ni yàlla daf koy neexal daf naa ko lëppi li boo boo mhm. mooy kuy taaru yaa ko gën a rafet yow rasulillahi sallallahu alayhi wa waaw kon yaasin a ngoog mhm. xam nga sa soxna si si kër gi mhm. nga xam turam nga naan ko jekki tànk mbaa neexiree xam nga ne tuddul noonu déedéet ah? da koy neexal waaye yàlla bu ne taaha day neexal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa bëgg Seydina Muhammad fonk sallallahu alayhi mu di ko sàllalu mhm. yaa ayu mudaffiru yaa ayuha muzammilu mhm. yaa rasulallahi yaa nabiyallahi mhm. waaw yàlla dafa bëgg Seydina Muhammad yaa ayuha nabiyu yaa ayuha nabiyu yaa ayuha rasulu yaa ayuha rasulu dégg nga kon yàllaa ngi waxtaan ak rasulullahi kon xaaj Malik dégg nga de kon yaasin a ngoog mhm. aha yàlla nee na yaasin ni kon yaasin daal euh, lañ la ca wax léegi mooy moom yaasin daal mooy xool alquran mhm. waaye lottuloon na mindee fi mhm. yàlla nee na maa ngay giñ ci alquran mi mu xereñe mi wal quranil hakimi maa ngay giñ man yàlla wal quranil hakimi ci alquran al alhakimi bari aji xereñe innaka yow muhammadu rasulullahi mamado innaka yow keef gi nag keef keefu xitaab la mhm. ci ñi jàng grammaire arab waaw waaw la laa moogu di laa mu xasam maa ngi giñ ci yàlla ni la minal mursalina bokk nga ci trois cent treize prophètes yi mhm. ndax kat yonent yi téeméer lañu téeméeri junni lañu ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni mhm. yàlla dugal leen ñetti téeméer ak fukk ak ñett trois cent treize jël premier est annabiyu mhm. ak mursal du benn déedéet ñi leen soloo nañu leen mhm. xam nañ ne ay yurantu lañu mais mu ñu dara woote moo ñunti yàlla yaquba fukki doom yaak ñaar fukki doom yaak benn mhm. yusufa moom la yàlla yónni mais ñi ca des ñëpp ay ambiya u lañu ah. xam nañ ne ay yurantu lañu mais amuñu dara woote waaw buur daali nee na Muhammad ba ma doo ko naam mu ni ko innaka yow day bul déglu ñii naan la yàlla bu doon yónni keneen la yónni waaye du la yónni bu leen déglu de naan naan ñuy wax naan yàlla prophète am yi jeex na ñooñu bu leen déglu bul déglu yii naan la ci ci ñun nga juddoo yaroo ci sunu biir màggee ci sunu biir moo Mamadou amoo xaalis moo Mamadou yaa ngi dox ci marché yi di lekk ni ñun di naan ni ñun waaw yow yàlla bu doon yónni yow day Mamadou xanaa boo nekkoon di yonantu yàlla dana la booleeg malaaka bu nuy xupp ey xam nga lu xewa yàlla yónniwu la yàlla ni Seydina Muhammad xam nga lu xewa innaka yow rasulullahi wallahi maa ngay giñ ci sama màggaay ni la minal mursalina bokk nga ci ñi ma yónni hmm. ci trois cent treize prophètes yi ci nga bokk yi jël premier ci cent vingt quatre mille yi xamuñu yàlla def mhm. pare wala ak ñoom de mhm. ci trois cent treize yi leen dugal def examen vingt cinq jël premier nga yaakaar ne yàlla bàyyi na hmm. dafa dugalaat vingt cinq yi alxuraan yëpp boo ko vérifié ñaar fukki yonent ak juróoma ci ne yàlla génne vingt cinq yi dugal leen def examen cinq jël premier cinq ya nag moo yun ci yàlla noox yun ci yàlla ibrahima yun ci yàlla moussa yun ci yàlla isa sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga defee yàlla bàyyi na hmm. yàlla naa juróom jëlaat juróom yooyu dugal leen ñeenti bouton yi fay allahu akbar benn bi tàkk mooy sa waaj bàyyi Fatima ak Umu Kulsum Roqeeg Zeynabu baayu Abdullahi Ibrahima Qasim soppay Seydil Hadji Malick yaakaari borom Touba maami Cheikh na Cheikh Saad bu mhm. mooy Mouhamadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de mhm. Mhm. kon yàlla binde mooma buur daali nee na innaka yow Mouhamadou Rasulullahi maa ngi koy giñ sama màkkaay la min al mursalina la min al mursalina bokk nga ci ñi ñu yónni yow Rasulillahi innaka ay yaa Mouhamad la minal mursalina ala siratin mustaqimin nga tegu ci yoon wu ni coow yoon wu jub yow rasulillahi tanzil al aziz rahimi yàlla wàccee yàlla mi nga xam ne moo not bindee fi muy aji tedd da nga naan yàlla moomu day moo not bindee fi arrahimi mooy aji yërmande yër mooy yërmande waa kon mooy moom yàlla li tunzira ngir na xupp xaw man aw gaay gaa yoo xam ni ma unziru xupp ñu woon aba um seen i maa googu maaw naw ma maaw naf yu la ci njàngaramir arab da nga naan mm. maa unzira xuppuñu woon aba uhum seen i bàyyi mm. te seen bàyyi yooyu fahum ñoom xaafiluuna ñu di way sàggan xamuñu yàlla yaruñ ci seen njaboot jéemu ñoo xam yàlla mm-hmm. te prophète bu ne jàll na ci ñoom waaye diggante Isa ak Seydina Muhammad am na ci ñoo xam ne toppoon nañu yonent Yàlla Isa mm-hmm. waaye am na ñoo xam ne dañu sànku ndax ndax ndax xuppuñu woon seen i bàyyi kenn xuppu leen woon mm-hmm. waaw xupp mooy waar la mhm. da moytu loola safara mhm. moytu loola lu bon mhm. jëf loola lu baax nekk loola lu baax def loola lu baax pour nga xam borom bi subhanahu wa taala yàlla nee na rasul mu ne ko labbayka mu ne ko ñooña lank ñooñu day aw gaay gaay lañ yoo xam ni maa unzira xupp ñuul aba um seen i baay fahum ñoom xaafiluuna ñu di way sàggan laxat ci dëgg-dëgg xaqa yay na alxawlu alxawlu mbugal xawlu googu du firi wax de la googu mbugal lay firi laqad xaqa alxawlu ala aktharihim fahum laa yuminuuna alquran a ngoog insa da nga gis baat mhm. defe baat ba ca la koy déggee lay firee déedéet firiwul mhm. loolu mhm. xawlu gii firiwul firiwul wax de xawlu gii mbugal lay firi dégg nga ma wajaba ala aktharihim bil azabi gis nga mi ngi nii mi ngi nii seen xaabi xawli googu mbugal lay firi kon war na ca ñoom mbugal waaw war na ca ñoom mbugal ndax fahum la yuminuuna waaw kon laqad ca dëgg dëgg dëgg laqad xaqa yay na alxawlu mbugal ala aktharihim lu gën a bari ca ñoom fahum ñoom laa yuminuuna gëmuñu yàlla waaw léegi xaj ma ni ñu ma taxawee foofu mhm. beneen aaya ba ca topp mhm. nu yàlla def inna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 mooy maa de seeni loos mhm. ay chaîne lu seen film yooyu gars yi takk jaam waaw waaw takk seeni loos yi ay chaîne di leen di ah, di leen diri kay mhm. di leen diri def ak ñoom ay yàlla nee na fa yee ñoom day ilal azxaani nekk na ca seen ca seen ngaam ya fahum ñoom ay arrafiuuna ruusahum ñu di way yëkkati seen i bopp muqmaxuuna mooy ñu di way yëkkati pour waaw seeni bopp mhm. jaaxle nan nii ñu takk seeni loos ay seen mhm. waaw def nii di di lu leen diri allahu akbar waaw te mhm. la leen ko teg mooy ñàkk a bàyyi xel yàlla waaw ñàkk a yàlla la ko teg muy ñàkk gëm yàlla waaw ndax waaru ñu woon seeni bàyyi est-ce que kon wa min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsiruuna alquran a ngoog mhm. sayyidina muhammad a ngoog sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam buur daali nee na wa jaal naa def nanu min bayni aydihim ci seeni diggante shaddan baaraaz mhm. wa min xalfihim mhm. ci seen kanam mhm. min min bayna aydihim ci seen kanam def nañ ko saddan baaraaz wa min xalfihim seen ginnaaw saddan baaraaz fa axshaynahum muur na leen lu foom ñoom laa yubsiruuna maanaam euh, basara ak aynu du benn nit mën nay xool te du gis te du gis est-ce que waaye gisul biir ga nag mooy laa yubsiruuna allahu akbar parce que seen bët yaa ngi gis. Mhm. mooy keroog bu fukki ponkal ak ñaar taxawee ci bunt bi kenn ku ne yor jaasi. waaw ñu ne dañuy xaar Seydina Muhammad génn ñu rey ko. xaj Maalik Rasul daj na lu ne. lu ne Seydina Muhammad daj na ko. xam nga ku say teraanga yokk rek say noon yokk. say yokk mhm. say yokk. Mhm. maa ngi lay xamal ne ku say teraanga yokk say noon yokk. dëgg la moom daal yàlla mi nga xam ni moo moo gis lépp jëlal sa lépp jox yàlla. waaye te rafetal sa xol tey def lu baax rek mhm. xam nga nit sax bu ñu lay tuumaal di la waxal lu bon dangay ngay bàyyi ak yàgg alaaj mhm. ma dikk njaay moo ko daan wax mu daan wax ni mhm. nit bu ñu lay tuumaal da ngay bàyyi ak yàgg bàyyi la yàgg rek lu mu yàgg yàgg yàgg lay seede allahu na ñoo xam ne seen yitte yëpp mooy tuumaal gor ñi wax ci gor ñi lu bon wax ci gor ñi lu yàqu na xam ne lu saa yu ñu xëyee defetu doomu aadama la ñu bëgg ak nu mu échegee rek jikko yàqu na gis nga réew mi su jikko yi bu ñu ko defarul hmm. ñun ñun demagunu ñu dem non dañoo demagul sax <laughs> am na xam ñu ngi dem mais ñi nga xam départ gunu ñun départ gunu est mag ñi bind nañu hmm. wax nañu hmm. téere bu ne bind nañu ko mag ñi lu ne lu ne lu ne lu ne lu ne dañu dégg jamono mag ñi lu ne daj nañ ko lu ne wax nañu ko mhm. Seydina Muhammad lu ne wax na ko mag ñi jottali nañ ko te ba léegi gaa yaa ngi wax te kenn soppikuwul te la jamono gën a bon réew mi tey gën a yàqu ci jikko yu ñaaw alxuraan a ngoog mhm. waxi démb la de wax ju jiitu la waaye nopp yu sell la koy dégg yàlla ngay waxtaan ak rasulullahi wa jaalna min bayni aydihim saddan wa min xalfihim saddan fa absaynahum fa hum laa yubsiruuna fukki ponkal ak ñaar ku ne taxaw ci buntu néeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam boobu na ba nga am cinquante deux ans est-ce que Iblis saay saay baa leen jox boobu xalaat parce que dañu réunion ci daaru nadwa am ku ni xam nga dañ koy defa dañ koy takk ci fas takk ko ci fas am ko war fas yi dawaat moom ci àll bi mbëkk garab gi garab yi mbëkk miir yi mbëkk garab yeeg miir yi mbëkk euh, euh, euh, mu mbëkk garab yi dëgg yi jam ko mu dee noppal ñu noppal boppam am ku ne loolu du xalaat dafa bari doole dafa am pexe am ku ne xamoon nu ñu defa dañ koy tëj ci néeg duñ ko jox mu lekk dañ ko jox mu naan ku lekkul naanoo di nga dee am ku ne non loolu du xalaat iblis ne leen non loolu du xalaat lu ñu xalaat rek iblis ne loolu du xalaat ñu ne ko yow góor gi yow yow yow góor gi foo jóge mun Euh, ci maa ngi bokk ci magu najd yi boobu najd dañu amoon dañu rafetlu woon seen xalaat ñu ne ko waaw yow luy sa xalaat mu ni màkk ñaata famille fi am ñu ne ko douze famille fukki famille ak ñaar mm-hmm. mu ni waaw ku fi rey nit ñaata ngay joxe nga mën ko un million ko léegi fukki famille ak ñaar ku nekk day indi benn ponkal rek ngeen jox ko jaasi bu ko defee fukki góor yooyu ak ñaar mm-hmm. ngeen songandoo ko jamandoo ko mu dee bu ñu laajee diya fukki famille beeg ñaar ku nekk ñaar fukki junni ngay indi rek du bari ñun ko góor gi sa xalaat baax na de daay ayu nañ leen def noonu wax naan tëj seen réunion fukki fan ak ñaar ponkal bu ne ñu yox la jaasi ponkal bu ne ñu taxaw buntu néeg rasulullah oh, bu fa nekk loolu ñu ni waa ji dafa am sens waaye Seydina Muhammad a ngi ci biir gis nga yàlla ni mu mënee xeex mhm. gis nga yàlla bu ko neexoon mënu ko dawal gaaw gaa yaa ngay ñëw mhm. waaye yàlla bàyyi ko ci biir ba fukki ñaar taxaw am na ñoo xam ne ku leen bëgg a toroxal yaay torox maa ngi lay wax ni am na ñoo xam ne torox nañu la leen yóbbee seen toroxtaan gi muy bëggoon a toroxal doomu aadama am na ñoo xam ne ba léegi may wax ak yow torox nañu seen njaboot torox nañu la leen yóbbee loolu muy bëggoon a toroxal nit parce que doomu aadama foor ku yàlla teral kenn du ko toroxal waaye dañu bëggoon a humilier rasulullah bëggoon a toroxal Seydina Muhammad mm. parce que dañu xam lu sew te ti bi bëggul lu sew fukki ponk la nabi wa sayyidina Ali musulmaan ci biir mhm. ci biir néeg bi ñooy bu génnee rek nañ ko songandoo rey ko mu dee mu wa sayyidina Ali ne ko tëddal ni may tëddee sàngool ni may sàngoo takat la ñu koy bañ mhm. kuy denk moom lay dénk bi mu amee 18 ans la màkk dajaloo tuddee ko al amin ku nu wóolu mhm. kuy dénk Moustapha lay dénk kuy wax secret moom ko ciy waxtaanal ku bëgg loo bëgg mu sotti Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ali lii diwoo ko moom jox ko lii diwoo ko moom jox ko lii diwoo ko moom jox ko lii diwoo moom soo fay xëyee nga fekk ma waaye Seydina Aliou nee na bi ma Seydina Mouhamed nee nag ma fekk Médine ca laa xam ne du ma dee. est-ce que dégg nga bi ma nee nag ma fekk Médine rek ca laa xam ne du ma dee. Mhm. nanu jóg premier pas lay jëpp ne asalaamaaleykum ya rasulallah asalaamaaleykum ya abal yàlla lay nuyu yàlla ngi lay nuyu nag Seydina Mouhamed dong moo ko daan dégg. Adama dégg ko. Mhm. Ibrahima dégg ko. Mhm. Moussa dégg ko. Isa barki démb dégg ko. Zulkifli dégg ko de Ilyasa dégg ko Daaniyal dégg ko yàlla lay nuyu Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne na nga jàng saar wii mooy mooy bii may firi tey mooy surtu Yaasin waaye ba mu àggee ci wa ja'alnaa min bayni aydihim saddan saddan def nañu ci seen i diggante kanam mhm. seen i kanam barage mhm. wa min xalfihim seen ginnaaw saddan barage mhm. fa aghsaynaahum mu muur seen i mu muur leen muur seen kanam muur seen i bët. Mhm. fahum ñoom laa yubsiruun. mënuñu ko gis gisu biir mënuñu ko gis gisu biti fukki ponkal ak ñaar nabi taxaw ci bunt bi ña ngay nelaw bay xarak nabi tibb ne mu sotti sa bopp wan bi tiim leen ñu këf yeewu sëgg suuf say wadd geestu jibril ne ko yow góor gi nelaw ah jibril ne iblis ne laay waaye dañu njibar ñu sëmb bunt bi ubbi fekk am luñ tëdd ñu ah heureusement demul mi ngi nii ku ne génn a paak ñu génn a jaasi xëcc mbaaj mbàjj bi ni ni kii am luñ la oh am ko nañ ko rey mu ni non kii bu rey ko yàq der la mais nañ ko sonal bu mu ëllëg yi du ñeemee def lii mu fiy wut mu ko fiy wutu ñu sëmb si na àll sonal ko tëj ko waaye ñu laaj foofu Maodo mu ni non euh, une heure temps rek lañ ko daj bàyyi allahu akbar la sama wax une heure de temps lañ ko di saatan rek lañ ko tëj ko tëj bàyyi si na àll ñu wàññeeku ñëw taxaw réunion ñun nañ ko dabi Moustapha kër Aboubacar mhm. ne axrij man fil bayti Aboubacar génneel bi mhm. mu ne ko min arami ku dul soñ nañ newul ci biir néeg bi xale yar naa leen mhm. sa jikko la ñu yore du ñu fen du ñu nettali du ñu jëw waxal sa jikko la ñu yor mu ne ko yàlla ne naa génn màkk dem mi din Aboubacar ne ko a ah, astahi boo ko istihaaban ndax damay ànd ak yow akuk àndaale na bi da tekk ba mu ko waaw jooy jékki-jékki ree Aysa ne ko papa jooju ànd ak ree nu mu mën a àndee mu ne ko yàlla ne sanko àdduna ak alaxira na génn màkk dem Medina waaye man lay àndal doom loolu laay jooy dugg ci biir génn ñaari giléem jox rasulullah yi ko benn bi nag bii nag ko jëlal ma may la na bi ne ko déedéet da nga ma koy lebal sëriñ Mansuur borom nee na mhm. as loolu la jox rek nga ni daa ko yoyoo ci baax dara la bokk dëgg la la loo ko jëndee mu ne ko lebal ma mu lebal ko rasulullah yi Abubakar dugg ci biir xëcc deux cent mille mhm. jox rasulullah yi ne ko li na bi génnee cent mille ne ko am ma fay la sa bor bor boo atte bor fay loolu boo bu ñu la laajee dama tudd la mu war génn màkk mm-hmm. ma nga tudd xat baa u daan na war mbaam mm-hmm. ma nga tudd yaafuur mm-hmm. daan na war bax la ma nga tudd dul dul la bu njëkk xare ma nga tudd sak bu moom muhammadu rasulullahi waaw moom la Cheikh Seydi Hadji Malick bi na lahu min al xayli sakbun est-ce que lahu min al xayli sak sakbun amoon na euh, fasu tudd euh, euh, ziraabu Euh, lazizu mhm. waaw ci ay ci ay fasu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla def baaraas booba mhm. ba mënuñu gis Muhammadu rasulillahi yuriduna an yutfiu nuura allahi bi afwahihim wa yaba allahu illa an yutimma nuurahu walaw kariha alkafirun هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم am na beneen tamit bu ci yàlla waxaat wa is yamkuru وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم buur daal léegi ngay waxtaan ak Rasulullah yi nee na ko day saay saay màkka ña ngay namm pour fay leeruk yàlla gi an yutfia nuurallahi waaleykum salaam wa rahmatullah eh, haj Malick bala ma firi bii ma jël kii bokk mi salaamaaleykum asalaamaaleykum a ah. la béyka sant bi Tambédou la noo tudd Tambédou tur bi naka la Fatou Tambédou Fatou Tambédou waa kay Tambédou maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax di la ñaanal aan jërëjëf alhamdulilah ñu ngi taataan alhamdulilah ngeen ñaanal ñu bu ñu taataan yu jëfe jërëjëf Tamidou ñi sàkku fi borom bi tamit mu fóot xol yi ba mu set ba lii bu ñu ko déggee mhm. surtout tey yëkkati dafa am solo lool muy sóoratul yàpp bi waaw suñu oustaz ba Cheikh Lamine Sène daf ñu daan wax fexe leen ko mokkal. Cheikh Lamine sama xarit ku baax. waaw mhm. Mhm. daf ñu daan wax fexe leen ko mokkal. ndeysaan ndeysaan maa ngi gis nag saa yu ne di leen ñaanal nag. jërëjëf yéen ngeen di sàpp si ngeen ñaanal ma ma tari ko. incha allah fooy wootee nii. maa ngi wootee Sicap Darabis. Sicap Darabis. waaw waa kay tàmbali bul bul coupé bul coupé ñu jox la si suukaru koor. waaw ndax Cheikh Lamine Sène sama xarit la sama soppe la. waaw sa sëriñ boobu jërëjëf kontaan nañu. dama ko wër ba gis ko. ndax ñu soppe na soppe bu baax di ko bëgg Seydina Mouhamed Cheikh Lamine di nuyu Serigne Khadim Sène moom itam di nuyu soxnaam Ayda jërëjëf jërëjëf jërëjëf Sène euh, Tambédou maa ngi nuyu Serif Tambédou ca Gambie Jëtu Tambédou Marème Tambédou Ba Tambédou euh, ka ka kii Abdou Karim Tambédou ñoom ñëpp sama xarit yooyu so yaay Adja Abi Ndiaye di ko bëgg Seydina Mouhamed na nga ca Banjul dégg nga yàlla nee na la ñu namm ñoom. Mhm. mooy fay leer gi. yutfiu nuur allahi. Euh, tonton mag Karim bu ñëwee rek mu agsi mhm. waaw yàlla. Mhm. yàlla nee na Momadou ñii xamuñu li xew. déedéet xoola samaam fële mu wax. wa yamkuruuna ixtiraaran zaaka dëbuhumu. wa yamkurullaaha itmaaman li zullihi bi. bayit ba ko jiitu mooy. Euh, bayit mm-hmm. ba ne ca kaw ma bayit ba ne ca kaw bayit ba ne ca kaw muy euh, yoxo bayit ba ne bayit ba ne ca kaw bayit ba ne ca kaw wa ajmaa kullu mm-hmm. lil itfaai ma alimu ma alimu mm-hmm. bi anna dalika nurullahi fi lqidami fi lqidami mooy wa ajmaa dëppoo nanu al kullu ñoom kenn képp kenn ci ñoom lil itfaa i ngir fay maa la nga xam ne alimu xamoon nañu ni bi anna zalika naka lii kat nuurullahi leerug yàlla la allahu akbar lii Seydina Muhammad indi mhm. leerug yàlla la fi xidima ci lu jiitu waaye wayam kuru na ña ngay pexe-fexeelu mhm. irtiraaran ngir waru mhm. mu ni zaak waru googu nag dëkk bu humoo seen adala am na ñoo xam ne mënuñu def sax mënuñu sax def lu baax gis nga parce que seen deret moo leen tooñ. allahu akbar. al arqu dassaas. arqu dassaas fa inna al arqa mhm. dafay rogalaat. allahu akbar. deret dafay rogalaat. Mhm. am na ñoo xam ni ñu ngi jéem nag ndeysaan ñu ngi jéem. ndeysaan yenn saa seen seen deret tooñ leen. war na sàmm deram sàmm ngoram. Mhm. ba ëllëg lay roga rogalaat ci sa njaboot. ci ci say mu nekk lu baax. zaak dë'muhumu woor googu seen aada la mhm. waaye wa yam kuru delloo leen mhm. gis nga ñaari yam kur la bu njëkk bi waru lay firi mhm. waaye bu mujj bi delloo lay firi ndax borom bayaan yi ñoo wax ni ñaari nakkira bu ñu bokkee baat bu ñu bokk firin waaw wa in ata mu nakkarun mu kararun taxayara waaw waaye wa anhumu xad xad zakaru yam kur delloo leen allahu yàlla it ngir matal ngir matal li zullihi mi ñeel seen toroxtaange yàlla ne wa iz yamkuru bika alladina kafaru mhm. li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yaqtuluuka aw yuxrijuuka aw yuxrijuuka wa yamkuruuna wa yamkuru llaha wallahu xayrul maakiriina mhm. seen pexe sooy na ba ñu taxawee pour fexe fexe la pour rey la mhm. saxal pour génne la ca makkatal mukarram waaye seen pexe sooy na de yow rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxaat ni sa aaya ba ci topp xaj Malik muy wa sawaa wa sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun innama tundiru man ittabaca aldikra wa xashiya arrahmana bilgayb فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين sadaqallaahul aziim sadaqallaahul aziim yàlla nee na yàlla ngay waxtaan ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam buur daali nee na wa sawaa'un alayhim mhm. a anzartahum am lam tunzirhum laa yu'minuuna mu ma doo mu ne ko naam mu ne ko innamaa tunziru man ittaba'a zikra wa xashiya rahmaanu bil xaybi mhm. fa bashirhu bi magfiratin wa ajrin karimin mhm. waaw waaw alquran a ngoog kon saay saay saay saay saa ngoog saay saay màkka ngoog ñoom seen fexe sooy na ndax la ñu bëggoon pour faagaagal muhammadu rasulullahi yàlla jàppale ni sayyidina muhammad ba mu génn màkka dem ca madinatul munawwara kon waa màkka ñoo ko toroxal waa médine ñoo ko teral moo tax ñoo tëral rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga ma waa Màkka ko toroxal génne ko. Mhm. ndax dëkk boo juddoo yaroo ci dëkk ba màggee ci dëkk ba xamoo lu dul dëkk ba say way jur juddoo fa nga juddoo fa ba am fa juróom fukki at ñaar. Mhm. cinquante deux ans. Mhm. door a génn ci mag ñu génne la dëkk ba pour fexe nu ñu la rayee ndax sa teraanga yokk. Hmm? est-ce que loolu métti na lool. salaamaaleykum. waaleykum salaam. bisimilah. toog ñu ngi ziare. ñu la koy delloo kooku. ñu ngi rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf. woote fii Dakar wax dëgg yàlla man nag maa ngi doon woote ci émission bi. bisimilah yokkal kàddu gi tuuti rek di leen gërëm lool nag. jërëjëf. waaw lii nag wax dëgg yàlla bu mënee di continuer moom bu koor gi jeexee wax dëgg yàlla moom gën a nekk na lu ñu gën a lool lool lool lool. alhamdulilah alhamdulilah. yaa ngi ñaan yàlla yal na yàlla dolli sa xam-xam. amiin allahumma amiin. yokk sa xam-xam. sama mën di jaaree ci nga dendal noonu. amiin tur bi naka la. Eh, allo. Alaaji Kay Alaaji Kay. Alaaji Fay. Kay. Pay. Alaaji Pay Pay. Gay Gay Gay. Gay ah? Alaaji Gay. waaw yokkal ma euh, baaxu bi tuuti rek Alaaji Gay. waaw. yaa ngi wootee fan. ñu ngi woote Dakar. Dakar waa kay Gay. que jërëjëf jërëjëf Gay kontaan nañu baax a baax a baax. ñu ngi la koy delloo yal na yàlla yokk leen dëgëral. yàlla sàmm kóllëre gi ci daraje Sayyidina Muhammad sallallahu xam naa insha allah loolu moom du mën a ñàkk bu soob yàlla ah, dem alaaj jërëjëf gay ñu ngi nuyu waa Ndakaaru yëpp ngay wootee mhm. yal yàlla yokk leen dëgëral ci daraje Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na mhm. alayhim mhm. moo na ca ñoom ndax xupp nga leen. Mhm. ñoom si yéefari màkka. Mhm. ah kay xupp nañu leen kay. ca am zartuhum am lam tunzirhum mhm. ndax xupp nañu leen. nee ma xupp nañu leen. xupp nañu leen. waaye nag ñoom fahum laa yuminuuna dañoo gëmul. allahu akbar parce que seen xol yaa baaxul. la ñu mënul dékk mooy Muhammadu rasulullah. sallallahu alayhi wa sallam. la ñu gis daal mooy Muhammad ibn Abdullahi. ibn Abdullahi. waaye ñu gëmul woon mujj am am na ñu ci mujj gëm mhm. am na ñu mujj gëm topp rasulullah ba ñu demee ba xam ne leer gaa ngi ci loxo rasulullah mhm. ñu mujj nañu ñëw innama xamal ni tunziru xuppeef na mhm. man ittabaaku topp a zikra alquran man ittabaaku topp a zikra sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa xashe mu ragal arrahmaana yàlla bil xëy bi ci lu fàddu yàllaa ngay waxtaan ak rasulullahi moom ma doo mu ni ko naam mu ni ko fa basiruhu moom yàlla day dina bégal bi maxfiratin wa ajrin karimin kooka topp alquran fa basiruhu danaa ko bégal man yàlla bi maxfiratin ci sama njéggal yàllaay jéggal njéggal mi ngi ci loxol yàlla wa ajrin karimin danaa ko fayit nag gën jaa tedd ngay faya fay fay karimin bu tedd mhm. fay la teg la ci pénc mi taxaw gërëm la ne jaamu nga ma topp nga ma mooy gaa yi nga xam ne ragal nañu yàlla mhm. gëm ni yàlla am na xam nga bil xay bi mooy mhm. yàlla daf ñu wax ñett ñu gis ñaar mu des benn xam nga ban ak banaan xaj maa yàlla nee na naa leen dundal bis bu nañu dem génte dëgg la yàlla nee na. Mhm. naa leen rey bis bu nañu dem dëj. dëgg la yàlla nee na naa leen dékkal war nañoo gëm ne ëllëg naa jàkkaarloo yàlla. waaye bil xëy bi foofu euh, mooy koo ragal te gisoo ko te mooy yàlla. Mhm. Mhm. xaafahu walam yarahu ragal ko ba noppi te gisuloo ko. waxa si rahmaanu bil xëy bi. am na ñoo xam ne nañ yàlla amul waaye yow nee nga yàlla am na gëm nga yàlla yaa ngi jàmm yàlla toog yow dong sa biir néeg deux heures du matin ngay wéetal yàlla di julli di jaamu yàlla di julli bari am na ñoom dañuy julli di jooy yor sa course di saxoo kalimatu laa ilaha illallah di julli ci na Muhammad di ñaan yàlla kon kooku gëm na yàlla xam na ne yàlla am na ma ngay wax ak yàlla te gisu ko yàlla nee na mooy gaay yi ma ragal mm-hmm. السلام عليكم الو السلام عليكم عليكم السلام بسم الله الو السلام عليكم عليكم السلام استاذ صابان لبيك soxna Xadi loo seen lu yow la soxna Xadi seen lu soxna Xadi naan loo loo waa kay loo loo loo ñu ngi ziyaara di baalu ak ñu ngi la koy delloo baax loo di jéggalu nag si dog bi ndax émission bi du bu ñu war a wootee. ndeysaan. damay déglu toujours mu. maa ngi lay ñaanal de yàlla na guddal sa fan tamit. amiin loo bokk amiin. amiin loo amiin loo. lay seetaan bu baax toujours ñu lay topp depuis. jàmbu Tiwaawan. ndeysaan. waaw jërëjëf. waaye sunu xarit kontaan nañu waay. noo yàlla gën a barke lépp yàlla na ñu ngi nuyu. waa Sèye li ngay nga lay bu baax. ndeysaan ndeysaan jërëjëf loo jërëjëf jërëjëf loo ñu ngi nuyu waa Sèye yëpp ñu ngi leen di ziara bu baax a baax a a baax. Mhm. dégg nga Xaj Malik. wa xashiya rahmaana bil xayb. wa bashirhu bi magfiratin wa ajrin karim. lu ci yàlla teg. نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم صدق الله العظيم إنا نحن yàlla foofu bay mhm. wax ba noppi di feddali la may wax inna inna ñun yàlla naxanu ñun est-ce hmm? mhm. xam nga xum anta mhm. jugal yow waaw hmm? jugal yow kaw ni jugal kay jaru ko yow déedéet hmm? déedéet anta jugal yow inna naxnu nuxiil mawta wa naktubu maa qaddamu wa aasaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamin mubiin wadrib lahum mathalan واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون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 إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمثنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون صدق الله العظيم صدق الله العظيم waaw Xaj Malik yéen yàlla guddal sa fan amiin yaa rabbal aalamiin xool yëpp seen jërëjëf buur daali nee na yàllaa ngay waxtaan ak rasulullahi sallallahu alayhi wa euh, sallam maa ngi nuyu xaaj Moussa Diop Moussa mhm. Taha naaw mhm. Seynou suñu bàyyi suñu yaay Adja Ami euh, suñu yaay Adja Aminta Saw li nuyu bu baax a baax ca Thiès Binta Saw mhm. Adja Binta Saw Adja Binta Saw euh, di nuyu soxna Adja Adja Adja Ndey Cissé isaan baax Baye Alxaji Maxtaar Cissé ca Thiès Baye Alxaji Saalix Aan mbokk mi salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Euh, ñu ngi dëkk ci waa ah. Ndar. Ndar lañu dëkk. yaa ngi dëkk Ndar. waaw. tur bi naka la. ah Mamadou Mouhamed Mbodj. Mouhamed Mbodj. waaw. Mouhamed Mbodj waa kay Mbodj. dañu bëggoon participer ci waxtaan bi rek. bismillah mbooj Mbodj Mbodj. ndax émission bu émission bu neex la. jërëjëf jërëjëf Mbodj. ñu war mhm. jërëjëf Mbodj. Ah. ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm. jërëjëf gi. jërëjëf Mbodj. waaw nuyu waa Ndar yëpp. Abdou Aziz Diagne ca Ndar maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. leen ñaan na yàlla yokk leen dëgëral. ci darajay rasulullahi. sallallahu alayhi wa sallam. yàlla ñun yàlla. Mm-hmm. ñun ñun yàlla. nuxil mawta ñooy dundal al ku dee. Mm-hmm. nga dee yàlla dekkal la hmm. mais ku dee mais lu mu mën a defar defar defar ndax mën na defar ruux déedéet ruux moom yàlla rek a ko mën a defar xaaj hmm. maalik yàlla moomu nag hmm. nee na maay dundal ku dee nga dee ma dundal la tegoon na ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tegoon na ko ci ay yonent isa yàlla mayoon na ko soo mu dekkal la mës na dekkal xale boo xam ne bi muy dee 18 ans la am yooyu soo dafa ànd ak waa dëkk bi parce que dafa am ko ñëw ci moom ne ko pour ma tuub sama doom ja dee laa bëgg mu dekki pour ma gëm la est-ce ko rasulullah it nag sallallahu alayhi wa sallam waaye ko pour dekkal sama doom mhm. ma di fëgg bàmmeel bi mhm. ne ko diw mu wuyu ko ñëpp yi mu ne ko loo bëgg ndax bëgg nga dellu si waat ci àdduna xale bu jigéen ma ne ko mukk yaa rasulallahi labbayka wa sa'dayka yaa rasulallahi maa ngi lay nuyu yow sa nga nag alaxira mm-hmm. fii ma nekk day moo ma dàqal foofu ndax yàlla ak may teral waa ji ne ko yow la yàlla yónni ndax kii kaddu gii sama kaddu dooma mm-hmm. ña nga taxaw ca bàmmeel ma ne a ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah yun ta la isa fëgg na bàmmeel boo xam ni xale ba ba muy dee dix-huit ans la am isa fëgg bàmmeel bi xale bi jóg xaraw ko weex tal mu hmm. bejjaaw hmm. waa dëkk bi na ko yow bi ngay dee bejjaawoo di waaw ah. mun damaa tiit damaa defe ni taxawaayu bis pénc jot maa ngi lay xamal ni bis boobu Hajj Malik hmm. ku dekki di nga tiit di nga tiit ba bijjaaw